ku baax la woon ku effacé wu la woon moom laa doon wax léegi nii da jiite média waaye ñu bëri sax dañoo juum ci suba jël vidéo rakk ji naan moo may ngi loolu li ko waral mooy làqatu bu mu làqatu woon waaw yaru toog ci ndeyam bàyyam gërëm ko donc ñoo ngi leen koy jaale ñun ñëpp. tey waaw nday pétaaw yow moom dan la koy jaale ndax ku xam coon xam ma xam la yow ñoo la yar donc xam nga moom mi bu baax xanaa da ngay def sa liggéey rek waaye ku effacé wu la woon ku baax ku amul diine ku amul lislaam koo xam ne liggéey rek la xamoon nekk di jiite média mais kenn mësu ko dégg ci lu ñaaw donc tey bu nu bu nu bu ko yàlla mi nga xam ne moo ko joxoon jëlaatee dan koy ñaanal rek fa mu jógee fa mu jëm yàlla na fa ko gënal fa mu jógee ci barke Serigne Saliou jërëjëf ñoo ngi leen koy jaale bu baax jërëjëf. TV macha allah après nag ci laa laa ci laa gis ku ma dalal ñu ne ma kii doomu coon la muy moom yi mii tey ma ne ko yow doomu coon nga mu ne ma ne ko kon yow yaay kan mu ne man maay moom yi yaru lool baax lool mu doon nag koo xamante ni elle était très effacée quoi vraiment demee na ndaw ko te tey demam gi bett na ñëpp tey ku xool li li li fi ñëw ci tey si mbooloo sa xel war naa dal et puis guddi àjjuma ji ñu koy denc. mu nekk guddi ajuma joo xamante ni nee nañu kuñ siy denc daal nit ñi de am si yow yaakaar vraiment ak témoignage yi ko jëkkëram defal euh, ci levée du corps bi macha allah loolu ku mu dalul sa xel leneen am na ngërëmal yaay am na ngërëmal baay te it euh, journaliste yi mu nga xam ne ñoo bokkoon ak moom des médias yëpp vraiment sedd nañ ni ku baax la woon ku sedd la woon donc yàlla na ma yërmande suñu borom maa ngi koy ñaanal yàlla na motalee ndawam àjjanatul firdaws moom moom laa wax nii léegi nii. donc euh, moom relation yi ñëpp am ak bàyyi am doom rek laa am ak moom ndax bi ma koy li ma ko gis bariwul waaye nag euh, macha allah keroog bi ma koy mujjee gis ndeer ma amoon émission foofu moom moo ma dalal dalal ma jox may boison jox ma lépp ni ñuy taralee gan mu taralee ma ko tey bi ma déggee tamit euh, génn adduna ak couleur bi ma am ak bàyyam macha allah damay ñëw teew ñaanal ko parce que bàyyam newatu fi ñun la fi dese comme ay baay ñoo ngi koy ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko fi mu jógee. d'accord papa yaa ngi koy nga xam ne moom moo ji Bougane Gueye Dany nga xam ne actuellement mu ngi woon ci langum politique bi euh, bàyyi woon na sa pratiquement média nag lépp daf ko dénkoon soxnaam si nga xam ne bras droit am la woon léppam la woon ah, ban message ngay jox Bougane. ah Bougane xanaa ñu ko ñu ñaanal ko yàlla yàlla may ko dolli ko xolu muñ parce que tey d'après les diir d'après li mu wax tey ci levée du corps bi ah amoon na euh, loolu soxla si jabaram jabaram doon na ko jàppale. bu baax a baax a baax xam naa elle va rester une très très grande vide ci liggéey bi nga xamante ni Bougane dénkoon na ko parce que nga am sa jabar pare mu nekk sa xarit et je pense que tey mu xëy rek dem je pense que choc la waaye nag dañ koy dañ koy dolli yàlla na ko yàlla defal yàlla ko yàlla dolli xolu muñ bu mu ko muñee parce que tamit jàmbaar la ci yoon wi jàmbaar la ci nit ko am ni jàmbaar la ci lépp euh, macha allah te lii nag dee nag moom demal maa ngi ñëw la am kenn kuy ku mu mm. maanaam ku matara da dem mm. donc ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla teg loxo moom bàyyi ko ci kanam njaboot yi mu sàmm ko daal. papa yaa ngi koy wax sànq yaa ngi wax ni boog yéen seen papa ñi nga xam ne yéen fi dese. Hmm. alors gis nañ ne papa Thion moom wuy jën a boromam ki nga xam ne moom moo nekkoon seen taaw bu jigéen di moom yi. Hmm. actuellement suñu borom def na li gën tey yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk tey di seen mag di seen papa tey ban message ngay véhiculer à l' endroit de la famille de Thione Seck ngir ñu gën a mën a suivre. waaw rek bokk ndey ak yemul sas ci famille Thione Seck rek parce que Thione tamit sunu mag la euh, la famille musicale surtout damay wax ni ak euh, la famille des médias na ñëpp yéenante jàmm àdduna bi dafa jeex ba pare parce que tey loo gis rek ci nettali lay tey nettali ba yàlla na rafet amul kenn ku fiy des ëllëg bëgg naa nit koo xam ne yaa ngi liggéey ci liggéey liggéey wane ci mbaax wane ci ngor wane ci jàmbaar ngir ëllëg nga mën a am way wa nga mën a am seede wax donc euh, moi je pense que loolu daa amoon daal loo xam ne vraiment ñun en tant que baay dañ leen di ñaanal ñu gën a suudewu gën a modeste gën a yemale gën a moytu parce que dañ nekk ci jamono bu naqari cat baaxul lamine baaxul seytaane baaxul yàlla nañ ci yàlla musal et je pense que tey ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne ñun moom la ñu am ñuy relève bi yàlla fi yàlla bàyyi ba ku ci nekk li nga bëgg sa xol nga nga mottali ko ba ba teral say waajur ñu bëggoon xam euh, sa relation ak famille bi lan la ak tiis bi tey nan nga ko yëg. waaw xam nga c'est famille ndax papa Thione moom moo ñu bokk jur waali di sama xarit di sama frère moom i moom sama jigéen la woon di ku baax mm. waaw dañ koy ñaanal lekk yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xaaree ko àjjana muy nit ku baax ku jàppoon jàmburam nan ko ñaanal daal yàlla na ko yàlla yërëm ban ku baax. waaw moom i ku baax sama nit ku baax waaw. yan kàddu ngeen mujjee échangé. waaw gëj naa ko dégg nag yàgg na. Mhm. waaw mais nit ku baax la daal. ban message ngay dénk borom këram Bougane Gueye. waaw Bougane ne ko mu gën a yokk muñ rek. waaw yàlla mi ko ko joxoon moo ko jëlaat. Mhm. waaw jërëjëf. merci mu ngi noonu corbillard bi doogay yegg si noonu soxna moom yi sekk yàlla na ko sans borom yërëm taxaare ko àjjana mooy doogay yegg si noonu. ñu nar ko denc ci këram gu mujj fii ci cimetière bu Yoff di leen fàttali mbokk yi. way juróom bu góor di Thione Seck y a de cela deux ans su ma juum ñu daal di koy denc fii nga xam ni moom moo di sëkk yu alors la famille est là ses amis ah ñu ngi koy accompagner ak ay sikkar mu ngi noonu corbillard bi dugg na ci biir euh, maa ngi seen ci biir nag famille bi famille bi rek ñoom ñoo nekk ci biir euh, corbillard bi ànd soxna euh, moom mi Seck mi nga xam ne ñu ngi ko nar a denc ci këram gu mujj oto bii ngeen gis nag oto délégué amaar la moom moo nekk noonu moom it yàgg lool famille bi moo nekk noonu di di di dugg soxna moom yi sekk ñu nar ko denc fi nga xam ne moo di sëg yi nekk fii ci si yoof juróom góor fi ko denc moom it ñu nar fi waajal daaju ko fi denc ñu ñaanal ko sunu borom xare ko àjjana ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñi fi teew ci mbooloo soo ko xooloo rek xam ni baax rek am solo soo xoolee mbooloo mi ko gunge ci këram gu mujj gi moom soxna moom mi sekk mu baax mi bawoo fi nga war a xam ni rek baax rek am solo ay kilifa yu mag ñëw nañ fi tey ah, ay kilifa kilifay diine kilifay aada de politiciens ñu nekk ci sew showbiz bi ay imam ay ustaas gis nañ leen fi tey ci denc gi nga xam ne ah, fi la ñuy denc ki nga xam ni moom moo di soxna moom mi sekk oto yaa ngi noonu di dugg oto yu bëri lool yaa trop de véhicules parce que nit ki moo tollu noonu moom soxna moom mi doon koo xam ni wax dëgg yàlla lii rek soo ko gisee war a xam ne nit ku baax la nit la ku yàlla baaxal parce que euh, dañuy faral di wax naan nit bu fi bawee koo rek xoolal ci euh, mbooloo ma na mu toll ci ña koy denc ci këram gu mujj euh, nge ñu mën ci jël ay seede daal xam ni nit ku baax moo fi jógee te dañuy tàmm ci bu ñuy denc nit mbooloo mu takku daal di gunge ci këram gu mujj kon mu ngi noonu mbokk yi ñu ngi nii ci buntu armée fi la ñu taxaw ci bunt bi daal di jaale bu baax a baax famille bi yëpp la presse aussi bu ngeen gisee ñu bëri fii moom mooy ki fi jógee dafa bokk ci ñun parce que elle fait partie de la presse moom soxna moom mi sekk ma fàttali leen moom mooy directrice générale bu des médias muy tele bi di rajo bi di site internet bi ak journal bi moom soxna moom mi Dany Seck mi fi jógee moo waral presse bi ñëpp tey babbeeku ñëw euh, di ko rendraale hommage ci këram gu mujj gi presse bi yëpp di ko jaal Bougane Gueye Dany di ko jaal famille famille sekk bi yëpp ñoom waa lekk ñoom ñoom Alioune di leen ko jaal bu baax a baax a baax tey wax rek mbokk yi ki nga xam ni moo di soxna moomi Seck mi fi jógee ñu ngi nii tey ci sëg yi nga xam ne moo nekk ci yoof ci kër gu mujj gi nga xam ne fi lañ ko war a denc moom soxna moom yi fii ñu ko denc nag euh, wax dëgg yàlla bu góor tamit fi lañ ko denc yàggul dara def na rek ñaari ak sumul euh, tey jii moom it euh, taawam daal di fi ba ñu indi ko di ko denc fi nga xam ni moom moo di sëg yi nekk fii ci yoof nit ñi bari lool di di seet bu baax la wax na ko tout à l'heure mi noonu ngeen fi gis ay autorité di fi gis de de xam ni duñ leen faral di gis sax lu bëri tey ñëw nañu ngir ànd ak soxna moomu sekk mu baax mi ci këram gu mujj gis ngeen oto yi ba léegi ñu ngi dugg oto yi ba léegi ñu ngi ñëw di ànd ak moom ci këram gu mujj moom soxna moom moomu sekk mi nga xam ni soxna la ci bu waaye taaw ci euh, ki nga xam ni moom moo di euh, sunu yaay jaaga moom it ñu koy jaale bu baax parce que yaay la ci presse bi waaye tamit yaay la ci ci Sénégal ñëpp parce que ñëpp yaay jaaga lañu koy woowee. sànq ci woyu bay nii moom yaayam moo ko waajal sang ko euh, mu doon loo xam ne image yu yu émouvant image yu triste la gis nga ñu ngi noonu mbokk yi nit ñi ñëpp daal di ñëw ah di ko di ko gunge ci këram gu mujj moom soxna moom ñu sekki mu baax mi ñu léegi ci buntu Yoff ñu nar ko denc ci këram gu mujj moom soxna moom yi ñu ñaan sunu boroom yàlla na ko jégal te xaare ko àjjana barke yonent ba soppeem ba moo ko tey de moo ko yaa ngi naan daa bëgg a yàq daa bëgg a baax ma jëndaat